kon mbokk Mbartalmi TV niñ leen ko waxee woon rek ñu ngi toujours fi nga xamante ne moom moo di tëngee ci festival bu mag bi fi am tudd festival keppaaru maam ñu toog fekk ay artistes bu nga xamante ni kenn dootul werante li nga xamante ni joué na ko ci rôle théâtre tey fii ci Sénégal du ñu def rek lu dul bàyyi ko mu nuyoo sëñ bi nuyu nan la. maa leen di fay di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wér la fekkee ak barale te bu barkeel donc mu melni ni ki ñu togal mom modi eh, ki nga xamante ni moom Mamadou Pen jeu lu nga xamante ni kenn dootu ko werante ci théâtre Sénégal señ bi Pen lan mo waral ñu gëj la gis ci nga xamante ni moom moo théâtre légui affaire bi ni mu démé rek am ñun dañu nekkon ci yo xam antar jamonoy tey daaray Kocc ñu daan daw bi lundi bi mardi mais jamono léegi bii comme ñun euh, rôle yi ñu doon joué ak léegi xale yi rôle yi ñu euh, di joué ñoom du benn ah te nit ku nekk li nga xam ne mooy yoon nga koy def rek moom nga war a def ñun théâtre yeeta rek la nu amoon droit di ko def amun woon droit joué film cinéma comme film comme acteur cinéma yi li ñu xewal xale yi nag léegi ñoom film cinéma la ñu joué loolu moo indi différence bi te léegi jamono léegi bi télé yi comme film xale yi la ñuy teg loolu donc moo tee moo tee ngeen nu gis de nde bu dee xam-xamu seet ba léegi ma nga fi mais comme télé yi ñoom xale yi la ñuy jël seeni film te xale yi film cinéma la ñuy joué ah nun nag duñu mën bokk si ay affaire film cinéma xam xale yi ay yu rafet wala sol lu seere wala sol loo xam ni du colaayu mag mënuñu solo yooyu solu loolu rek la mais dara xam-xam bi ñu yore woon di ko yeetee nit ñi ba léegi lu ko raw sax nga fi. waaw kon niñ ko gisee rek ci yi ngeen daan see toujours xam-xam bi nga xam te ne moom ngeen am boobu ba léegi am na place li nga xam te ne moo di cinéma bi nga xam te moom la def est-ce que am na ñuy taxaw ñëw pour euh, laaj leen pour defaral leen ay produits. déedéet gisuñu leen ñi ñuy produire mooy xale yi comme produire xale yi la ñuy produire ah xale ya tam li xam rek la ñu la ñu mën a jouer te xale ñom film cinéma lañu xam kon bu télé dañu ci xale yi jël leen di leen jëlo xale dañu leen jël te télé yi comme film cinéma yi lañuy tek teg xale yi loolu la ñuy yooyu rek la gis ñun nak comme ni ma la ko expliquer mënu ñu juyel affaire comme cinéma yi xale yi sol colaay yu xale yi mënu mënu ñu solo colaay yoy pantalon bu seere ñu naan ko xama pain la xawma man mi mag ñama na sol pain ñama ma sol pain bu dee rôle mère la jigéen nga nekk yaay am na colaay yoo xale jigéen yi sol pantalon yu seere ci sa yaram amul benn mère bu koy sol te nun ay paalanu ak ay mère su doon nag ñun ah, xale dañu doon ñëw di nun laaj di suyendu di nun ay rôle mag kon itam daañu am pièce yeete comme ñun ñun daan def mais nun mënuñu di suyee di yeete ba am ay cinquante ans soixante ans di yeete ba léegi nii nga bëgg a dugg si film cinéma yoo xam ne toogaay yi dafa ñaaw a ah, waxi ni léeg nga dégg si wax boo xam ne tegginuwul ñun du ñu def loolu. nde ku wax dëgg xam ni am na ñaari ñaari troupe yoo xam ni ña nga fi yoo xam ni ah, ba ñett ba ñeent sax parce que eh, arko yi am na si arko yoo xam ni. ñu ngi ci loo xam ne am yanu na maanaam mën nañu ko seetaan ku mel nag mbetteel bu sëñ ngañ mën nañu ko seetaan ku nekk comme ku nekk eh, lu mel ne wiir wiir yi mën nañu ko seetaan parce que euh, ndey ju ne dafay am doom baay ju ne dafay am doom comme nun ñoo jëkkoon nekk daare ko ci jamono tey ak tellement wiir ak mbetteel parce que mun naa ni moom la ñi di xoolee jamono tey ak daare ko waaw ah, am na yeneen troupe yoo xam ne nekkul troupe groupe la xale yi groupe la dajale def seen idée bopp rek filmer jox tele bi télé bi man nag si sama li nga ma laaj bu doon sama sama xalaat man di sama sago télé bi si xale yi suyeti loo xam ne dafa yenuwul maanaa wala dafa am dafa tegginuwul balaa nga koy teg senegal gépp di ko seetaan wala monde bi yëpp di ko seetaan da nga ko war a fi bañ koo tas boo ko fiisonee xool ko boo si gisee wax ju sàgg wax ju tegg ni nga bind ko ne leen suyewaat leen boo si gisee toogaay boo xam ne yiwul nga ne leen dindi leen ko defaat leen ko lii kon bu ko télé bi tegee du am critique mais loolu amul ko dañuy filmer rek ñu télé bi rek télé bi teg noonu addina léeg-léeg nag ñu sikka xale yi ne lu mais nag télé yi koy tegee tam war nañu xool balaa ñu koy teg kilifa diine yi di ko def parce que kilifa diine yi dañuy seetaan théâtre yi dañu koy seetaan di si kontaan donc kon bu télé bi xale yi filmé filma boo xam ne am na toogaayu teggani wala wax ju teggini normalement bu ko télé woon avant mu koy def nii di ko seetaan ñu defaraat ko kone daañu ko mën a seetaan mais léegi da nga gis ko filmer rek indi idée boppam di xale laajul mu ko mag si théâtre mu indi idée boppam rek filmer rek jox télé rek télé bi donc yéen mu mel ni eh, yete yete yeete bi ngeen daan def ci jamonoy daaray Kocc boobu ba léegi place am amna na si Sénégal ndaxte li ngeen daan def amna na yeete nit ñi di si jàngat ba léegi mais pourquoi pas léegi yéen ñi nga xam te yéen a yoroon ñi nga xamante ni ku mel ni Barthélemy TV ñëw produire ñu ko télé dañ koy jël parce que yeete boobu lañ soxla léegi Sénégal ni TV warul xaar ba ñu koy woo di ko wax ñëwal parce que pour pour Mbartal TV dem na ci groupe ni leen dama leen di dama leen bëgg a dama leen bëgg a produit pourquoi ñëwul ci ñun mag ñi ne dama leen bëgg a produit problème baa ngi foofu Mbartal TV bu ñëwoon ci ay artistes yu mag ni man de dama leen bëggoon filmer gam ngeen ci dee daañu ko jox mu filmer ko mais bu fekkee télé ñëwul ci yow ne la kaay dama la bëggoon produire nooy def yow da ngay dem ni ko forcé nga produire moom laa la la télé yi dañuy dem ci xale yi xale yi tam am seen idée bopp jox leen seen idée bopp la ñu mën a joxe waaw léegi nag bu bu ñu joxee seen idée bopp mu am toogaay bu tegginuwul wala wax ji tegginuwul film bi télé bi filmé ko noonu rek teg ko problème am moo tax mag ñi ñu ngi koy kaas rek bu doon nag xale bu def dafa am idée boppam woo benn mag mu xam ne dafa jaar ci yeete mu won ko ni ko a séquence bi tee nga koy dindi wala parole bi te ko dindi gani ko ne tam xalé yi am nañu idée am na ci xalé yoo am idée bu ñu doon laaj mag mag théâtre kat rek dañu leen dimbali wax leen ni leen ah togaay bi dal bu dee si bu film bi togaay bi yiwu si wala parole bi bu dee film bi yiwu si kon itam day ci na borom dellu ci waat ak jamono tay mais yooyu yëpp yi duñ ko laaj mag ci xiyan Cheikh mo mo gënon ay ci bind bind pièce mais lu mu aay aay aay dafa daan bu filmé ba pare wala bu kamara ñu bu ñu filmé ba pare dañu ko daan teg fusionné ko xool ba mu baax mu ne ah gars yi xool leen ñu xool ba xam ne film bi yëpp wax yëpp dafa yiw toogin yëpp dafa yiw ñu soog ko yóbbu télé loolu amatul. loolu dëgg la ndax su ma déggee bu baax li ngeen am moom mooy problème mu ki nga xamante ne moom moo di réalisateur idée yi nga xamante ne amoon ngeen ko daaree ko ci bu njëkk ba ba léegi mu ngi fi. xale yi xale yi nga xam ne ñoo toll si temps bi léegi di di jouer théâtre ñoonu du laaj nit ki nag soo ko laajul du la forcer ni la kaay ma jox la li da ñëw ne ko papa man de bëggoon naa def nangam mu ne la sa temu film lan la nga ne tem nangam mu toog wala la même bu si jouer wul na la assister sa na la assister sa sa sa film bu si toogaay bu jekk de amee dana ne la ah diw de ni mu toogee ne da ngeen ko waroon changé mu toogewaat nangam wala bu si wax bu teggu niwul nekkee mun la ah, xale bu jigéen bee da wax na nanga wala xale bu góor bi ni mu waxee dafa teggin wala reprendre leen séquence boobu ñu defaraat koo ne tam xale yi am nañu idée yu léeg-léeg ñoom nga gis ci xale yu am idée yu baax mais loolu rek moo leen manqué xale yi bu ñu doon laaj mag ñi rek seen lépp lépp baax na mais nag dañu doon laaj kenn donc comme ni ngeen ko déggee rek sunu mbokk internet Mbartalmi TV ak yeneen chaîne yi nga xamante ne ñoo nekk ci àdduna bi di ñu seetaan duñu def rek lu dul wax leen ni ngeen retourné si nga xamante ne moom di magu théâtre démb ya ndax idée yi nga xamante ne moom lañ doon développé ba léegi am solo ci Sénégal donc duñu def rek lu dul bàyyi sunu père Mamadou Pène mu tàggatoog sunu mbokk Mbartalmi TV bala ñuy bala ñuy dellaat ci beneen artiste euh, waruñu waruñu yem si si si mag ñi kese dama ne la man nañu ñew ci mag ñi pour produire len man nañu produire xale yi mais dama ne la xalé yi seen bop bu ñu bu ñu amee seen euh, film bu ñu wara bu bu télé bi wara a produire bu ko filmé ba paré nañu ko fusioné bala ngay won kilifa diine ak yépp da nga koy fusioné xol wax ju baax nga ci wala wax ju ñaaw nga ci wala toogin bu baax nga ci wala toogin bu bon nga ci lool la la wax ni la mo dess si film xalé yi lañuy def ne xale yi am nañu idée ñoom itam parce que xale am na idée mag am na idée mais bu doon dañuy fusionné pièces yi balaa ñu koy teg bu si wax ju ñaaw nekkee dañu koy dindi parce que kilifa diine léegi dañuy seetaan télé dañuy seetaan théâtre da nga si gis kilifa diine ku naan waaye jàppaleen ma eh, film diw ñoom waay ñu jàppaleen ñu ba doy moo tax ku si amati man bu doon sama sago laa wax ku si xale yi jaay pièce wala même mag ñi bu ñu la jaayee pièce balaa nga koy balaa nga koy génne diko tass ci si si Sénégal wala si ah, bitim rew fenen, nga duggal ko ci bir télé bi fiisone ko fofu ba paré soko koy génne parce que fofu rek nga mané ah, wax ju bonné ci si nga dindi ko wala toogaay bu bonné nga dindi ko mais boko ko tek bu mu daw si si si télé bi si si Sénégal wala si Afrique wala si man de mën a toog a mën rek mo si dess loolu rek man man Mamadou pen bu doon sama sago man film bu gars yi produire te film ka ba pare ni ka fusionné xool ko ba pare ba pièce bi jeex ñu xool toogaay bi jekkul wala wax ji jekkul ñu reprendraat ko defaraat ko ba mu baax amul problème mais loolu rek moo si moo moo des ma leen di ñaan nag ëllëg muy xale yi muy mag ñi ku de man daal bu doon sama sago ku si ku si amati sa xalaat bind pièce ba mu jeex nga filmer ko ba pare nga tëju fusionné ko ba pare parce que télé yi am na fu ñu mën tege film bi xol ko xol ko ba xam li bax na li baxul nga dindi li baxul def ci lu bax mu jeex boko jaaya tele bi boko tele bi tege mu nek ci rofot loolu rek man la len di ñaanal di len ñaanal jamm ak salam di wax nak ni sama dernier mo moy man en tant que artiste comédien bu mag ci grand artiste yi ma ngi sakku ñaan ci ci euh, gouvernement bi ci bopam produire ñu produire euh, artiste yi ndaw yi ak ñu mag ñeeg ñep ci affaire art man bu doon sama sago mu duggal ci loxom jappale artiste yi bu dee artistes yu mag yi artiste yu ndaw ak ñëpp mu dimbali ñu jappale jappale leen parce que xalé yi ñoy seeni doom ñun ñoy seeni pap bëgg nañ ko ñu dimbali mais artiste yu ndaw yi bu ñu leen jàppalee bi day gëna jëm kanam rek te ar dafa di lo xamni ci réew dafa bax parce que actuellement ni sunu kilifa diine dañu koy seetaan sunu kilifa adé dañu koy seetaan mag ñi seetaan ko kontaan waaw an fo rek la doon ñaan euh, en tant que euh, président de la république Macky sala ak soxnaam si nga xam ne moo kenn gënu koo baax Marème Faye Sall li mu def si Sénégal ren ni si campagne tabarkàlla ñëpp la ñëpp la dimbali wax dëgg yàlla ñëpp la ñu dimbali sero fot daal man nag bu doon sama sago ñoom ñaar daal maa ngi leen ñu dugal seen loxo si artiste comédien wutal muy xale bu mag ak bu mag ak bu ndaw ñu wutal ñu cité artiste na nanu man maa ko wax monsieur le président wutal nu cité artiste muy mag ñi muy xale yi wutal leenu cité artiste nga xam ne lépp fay nañ nit ku soxloote artiste jubal foofu ñu defal li nga bëgg wasalaam d'accord donc comme ni nga ko gisee mbokku Mbartalmi TV moo nekkoon Mamadou Pène mu daaray Kocc ñu def rek lu dul jàllaat ci beneen artiste comme niñ leen ko waxee woon merci